ay ca Walf Cuisine ñëwati nañu ziyaar naa leen sama gaay yi bàyyee nañ ci jàmm kooru jàmm ak salaam ramadan mubarak waaw tey nag nañu dem ak Reen Herbes Épices toujours ci mouvement su euh, ndogu bi defar ay jambon de poulet wala mortadelle noo ko woowee baax na voilà ak nu mu ci mënti demee blanc de poulet ngay soxla di nga soxla fromage yu yu yu façon forme bi ñëpp xam nañ ko li semoule de euh, maïs la euh, olive ñetti nen ak épices yi nga xamante ne moo koy assaisonné moo ciy def couleur lu ci mel ni épice su fumée bu ren herbe épice épice su lakk ginaar nga xamante ni couleur bi ngay soxla ci sa jambon euh, moom moo ko ciy def. bu lu ci mel ni lakk ginaar am na paprika am na romarin ay fleur de sel voilà mu nekk paprika nekk épice boo xamante ni moom day indi goût ba pare andi couleur te soxla nañ ko loolu ci. façon jambon yi parce que su ngeen koy gis ci commerce yi da ngeen gis yoo xam ne dafay xonq gis yoo xamante dafay weex donc yépp ci assaisonnement bi ak ci épice bi la ay ca ñu jàll ci recette bi rapidement mixeur ngeen di soxla bu ko defee ku nekk mën ko reprendre ak inde bi nga xamante ne moom lañ koy tayee ay ca ñu dem sama gars yi pare ngeen ay ca nañu dagat sunu blanc de poulet dagat ko ba mu ndaw comme ça ñu mën a dimbali mixeur bi voilà buñ ko daggee fejat ko ba mu ndaw daal di koy tàmbalee mixé ñaari option am na mën nga njëkk mixé euh, sëmul bi ak nen bi ba mu mokk nga daal di mixé sa ginaar wala rek nga def ko comme ni ma ko defee euh, def sa xorom di mixé par tuuti di génnee di mixé waat di génnee bu amee ay partie yoo xamante ni euh, mixé wul bu baax tamit amul problème parce que dafay dafay gën a neexal jambon bi nga def sa ñaari nen mixé waale mixé waat donc génnee gis nga man dama bàyyi ba mixé ginaar bi ba pare soo ko jël euh, semoule de maïs bi euh, fromage bi ak benn nen bi desoon mixé waat ko ak nu mu ci mënti demee euh, jàppal ni moment bi moom mooy moment bi gën a am solo ci wàllum assaisonnement bi voilà parce que bu saful fii dootul safati voilà léegi nag su yëpp génnee man ci laay soog def sama épice mën nga mixé waale épices def naa épice su nga xamante ne da ngay am goût fumé bi nga xamante ne des fois jambon yi dañ koy am lakk ginaar dina ci andi lu neex Euh, def naa épices su légumes njëkkoon naa defar euh, jambon euh, yaalan deux ans wala trois ans mais goût bi mu ma am awma ko woon voilà parce que ren herbe épice bi daf ci dugg bu baax andi ci goût bu neex li persil la ak laaj boo xamante ni moom laa ci mujj def du ko defee ñu daal di yëngal jël suñu papier film def benn boudin bu la neexee nga def boudin bu mag bu la neexee nga def boudin bu ndaw yow yaay xool forme bi nga bëgg nga def ko ñu daal di def ay olive ci biir biir option la soo bëggul olive bul def olive ci biir mën nga def ay poivron mën nga def euh, yeneen légumes yoo xamante ni euh, moom nga bëgg ci sa jambon personnaliser ko daal ak euh, à ta façon léegi nag cure-dent la ñuy jël daal di koy jam pique piqué ko parce que dañ koy tay sinon dafay gonfler voilà léegi nag bàyyi ko fa 40 jàpp une de temps parce que ginaar la dafa war a ñor waaw nag mburu mi du ci mën a ñàkk ndax séeréer yi dañuy seetaan voilà ñu def sunu mburu daax ci sunu beurre di nga maam def sunu tomate fraîche def sunu salade jambon bi pare tàng jëpp ñor xomb saf sap neex oxo li dama ciy ñëwaat ci beneen recette voilà généreusement nag parce que ñoo ko defaral sunu bopp Euh, def ko sunu sandwich voilà mu généreux nga def sa beurre euh, pain bu croustillant ñu ànd ci ak Reen Herbes Épices yéen a ngi gis point de vente yi ngeen mën a amee seen pack Reen Herbes Épices commandé leen ñu livré leen wala ngeen doxantu jënd ko ci euh, point de vente yi sinon site internet bi ngeen passé tamit seen ay commande jaajëfal naa leen bon appétit